bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokk ñi déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lilaa walhamdulillah wa laa ilaha illa allah wallahu akbar allahuma inna nasaluka xayra ma fi hada l yawm wa xayra ma baad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 xam naa ne jég ngeen ci mbindum sëriñ bi radiallahu taala baatu yóbbal tazawadu sigaar mi ngi ci tazawadu shubaan mi ngi ci ak yu deme ni ki yooyu yóbbal bi nag ren ñu joyaloon ko ci benn diiwaan diiwaanul ulum ad diiniya ñu dajale ci ay xasaayid yu am solo sunu mbokk yële ca France móol ko yal na yàlla fay leen ñu ñëwoon ñun ba ci téere bu tudd ci biir diiwaan boobu nahju nahju xadaayil xaaj waaw la téere ba tudd nahju xadaayil xaaj fii ma min al adabi ilayhi al mu di téere boo xam ne day jàngale ay teggin teggin yoo xam ne nun ñépp la bëgg nu mel noonu waaw mu ne ñu déglu leen ma ma indil leen loo xam ne ku texee di nekk ci yow loola mën na koo dindi ak laahi biir la goo xam ne wala ay ndénkaan wala ay ndigal yoo xam ne mën naa pëkk-pëkkal ku doon nelaw mën naa yee ku sàgganoon mun nañu fi ma koy tàmbalee mooy ku bëgg jëm ca dëkk ba teggin nekk walla ku bëgg a jëm ca dëkk ba tudd ay teggin li nga war a njëkk def mooy jàng nu ñu yërëme ndaw loolu ngay njëkk def jàng nan la ñu yërëme ndaw ba ca noppee boo ca noppee nga jàng nu ñuy ormaale mag yërëm ndaw ormal mag yaa nga jëm ca dëkk ba ñu tuddee teggin waaw tabarkalla mu ngook nee na bokk na ci nag boo àggee ca dëkk ba nag nga nga bàyyi xel ci bul xoolati kenn yëg ne daa am ay àq yum lay defal ak yum lay mànkeel ak yu matal waaw bul xool kenn nit jàpp ne dafa war a am màggal gum la war a màggal yëkkati gum la war a yëkkati bul séentu loolu ci moom mu ne jàppeel sa bopp rekk euh, koo xam ne am ngay teggin waaye bul sàkku nag ci say àndandoog ñi la wër nañ ma defal nangam mu ne ni nga bëgg nit ñi di la ko defal dee ko defal nit ñi waaw dee ko defal nit ñi na bokk na ci ay teggin nit ki bul ko xool en tant que waaye dee ko xool en tant mbindeefum aji bind ji muy subhaanahu wa ko am kàttan ki waaw mu ngoog nee na nga bàyyi xel toogandoog mag koo xam ne moo la ëpp ay at mu toog nga toog léeg-léeg foofu li seytaane ware nit mooy dalay jàpp ne yow boroom xam-xam nga kon ca kaw nga war a toog mu ne déedéet ginnaaw kii moo la mag rek bul ci xool yaa ko rawam moo la raw waaw ba bàngeen koy lijjanti mu ne soo toogeek mag nag nga toog ci suuf mu toog ci kaw dana nanga dal nanga dal bu baax a baax na nga ko wekk na ko wekk ànd ak ànd ak sakina waaw baatu Malick njaay boobu tawarkalla Sud FM waaw nee bokk na ci ay teggin ginaaw agsi nga ca dëkk ba dëkk bi tudd teggin bul toog di gestu gestu yu bari xool gauche xool droite xool ci kaw xool ci suuf xool gauche xool droite fu ne nga xool fa loolu golo moo mel noonu mooy jikkoy golo day gestu rek waaw fu ne mu xool ndax moom daa wóoluwul kenn ndax dafa dafa dafa am jikko ju ne ci moom golo lu mu faru sànni la ko moo tax defe na ne ku ko war sànni ko dara way day wiir wiir yi gastu rek nee na loolu alxuraan moo ko waxoon ca suuratu nuur waaw nee na bul bari bul baril fo bul bari ree bul bari caaxaan yooyu yëpp mu ne bu ci bari lenn la mbokk yi bind bi kon nekk ci téere bi di ju yu mel noonu la sëriñ bi bëggoon walla moom la bëgg ñu mel ko bu ñuy màggali bu ñu àggee bu ñu fay jóge tam sax ci ñun dàkk nag ñim yar ñépp noonu lañu mel waaw doom yépp noonu la ñu mel sët yi noonu la mel waaw taalibe kon góor góorlu mel noonu ci des ñëpp ñu bari ci ñoom noonu la ñu mel ñu ko melagut nañ góorgóorlu waaw ndax wax ji jëmul rekk ci eh, ci groupe bayib groupe ñëpp la jëm ndax eh, ijal rujuu xaw mi baatu xawmi ñëpp a dugg ca biir mu nga nee na boo toogee koo xam ne kii moo la mag walla moo la ëpp ay ay yëf nee bul bul bul di ree ah xanaa boog bu mënta ñàkk na yem ci muuñ na yem ci muuñ waaye toog ak kilifa keng keng keng toog ak kilifa tex tex tex tex mu ni déedéet fale daw ko xalila waaw loolu lu am am solo la ci ci teggin toog ci barab mel ni toogoo aku nit walla mel ni toogoo aku mag walla mel ni toogoo aku kilifa waaw tabarkàlla léeg-léeg nga dégg ci gone yi léegi ay terme yoo xam ne sàllaw da nga yéem sa borom waaw ay terme yoo xam ne eh, ci seeni waxin loolu du ay teggin diggante nit ak koo xam ne kii kilifaam la waaw ne su fekkee dangay wax ak kilifa su fekkee da ngay wax ak kilifa fexeel ba bul di tarxiis lu leex nga wax déedéet nel tekk bam bam laaj la walla nga ne tekk bam dugal la ca wax ja nga dugge ca duggin woo xam ne du doon duggin wu ànd ak ñàkki teggin waaye duggin lay doon wu am teggin nga jox ko cër moom mag mi la ci wax ci walla mu laaj la mbaa mu wax loola nee na loolu ay teggin la moo di teggin jëfandikoo ko fa innahu al adabu fastamil bihi waaw nee na boo nekkee ak nit kilifa àndandoo dëkkandoo nga yëg ne ah cër bi ma ci amoon amatuma ko wala joxuñu ma ko wala wala wala wa in jafaaka faxtamil jafatahu waaw soo nekk dëkkandoo mu wan la ginnaaw jéema la muñ wan ginnaaw googu waaye bul fayantoo xam naa loolu moom noo koy war na koo dégg nekk nit mu wan la ginnaaw boo ko nuyoo du la fay boo ko xoolee mu xol géej boo ko rombee muy serete ka meccati ko nee na bu li ni defee noonu faxtamil jafata jafatahu nee na loolu nan ko muñ nanga nga ko gàddu waaw na ko gàddu mu ne su fekkee dafa taraxiis tooñ la suturaal ko waaw suturaal ko bul ko wax ci penc ma diw dafa maa def nangam diw de maa génn ci moom nangam de la ma def déedéet déedéet nit li muy def ci pénc mi kenn du ko nekk li ca pénc ma rawatina bu fekkee yow dong yaa ko xam hmm? waaw waaw te ku suturaal nit boo lëgg yàlla suturaal la ndeysaan boo doon dox ba fekk nit ci lu dul noonu boo ko yàlla suturaal waaw mbokk ma Cheikh Ahmad Tidiane Gaye mu ko masa nettali lu ma masa dal ci école ba waaw jóge barab jëm barab seen ci sama élèves yu jigéen yi kenn ku taxaw ak kenn bi may ñëw ma mu séen ne maa ngi ñëw mu dugg ci ker gi ndax guddi la woon te jant te eh, weer wi daal génn man nag xam naa ni kii diwa waaw ma bàyyi ko ba école di tëj ma door indi thème boobu ndeysaan waaw waxuma ko nag moom waaye xam na ne moom lay wax ndeysaan gone googu moo jël moo mujj jël prix prix ba ca école ba ca bañ koy joxe lu am solo la nit ki nga xam ne daa def lum teyut dañ ko koy baal bu ko teyee dañ koy muñ te baal ko ko waaye fayantoo baaxul ci mpénc waaw wala tasal mucsiran ilayhi wala tazal muta wala wala takun saa xadamin alayhi fexeel ba di ko wutal buntum ngànt te fexeel ba bu dara tax nga mere waaw mbokk mu daa ñëw ci sallallahu alayhi wa ne ko dama bëgg ku ma dénk lu tax ma dugg aljanna yonent bi néewu ko saraxeli million néewu ko dara xanaa daf ne ko laa tax dab bul mer loolu la ko wax laa tax dab bul mer ah waa ji dem toog benn fan ñaari fan ñetti fan delsi wax la ma waxoon yonent ba baamtu la ma laa tax dab bul mer mu toog ay fan delsiwaat mu wax ko la ma laa tax dab bul mer wala kal janna daal di ko cay dolil ne boo dul mer bu ñu ubbee aljanna ku dugg nga dugg kon nag nan jàng bañ a mer waaw nan jàng bañ a mer liggéey ci sunu xol loo xam ne kenn du nu mën a merloo ñu mel ni Aruna Rachid waaw walla Moustapha Jong <laughs> waaw nee na ma léegi moom mooy Aruna Rachid numéro 2 bu fekkee am na waaw le waaw Moustapha Jong yàlla na ko yàlla yokk wér waaw ca suñu aj màkk gaag Haruna Rachid dégg naa kenn mësu ko mën a merloo ñun tam nan ko jàng nan jàng bu nu kenn mën a merloo ginnaaw mer baaxut wala takun saa xadabin alayhi bul mere kenn bul mere kenn sëñ Abdul Ahad radiyallahu anhu jàngalekat boobu ba muy ñëw ci lan mooy mer ak lan mooy xuloo te mën a du ci def lenn ndax lii waral xuloo lii la lii waral mer lii la te yooyu yëpp dara du ma ci dal mu ne yow allahu akbar ñun tam nañ fexe ba yooyu nga xam ne du ko dal du nu dal waaw fu waay joxee ngànt nañ ko nangul ngant la xam nga ngant ngant léeg-léeg nit ñëw ah baal leen ma de nàngam nañ nangu rek waaw nañ nangu rek fi ne li li li li gën a jafe ci dëkk bi mooy woo nit téléphone jotoo ko ba noppi doo ko dogal ngànt diw def ma dama ko woo jëluma lu tax loolu waaw loolu daanaka mooy yàq diggante yi jàpp ne danga ko woo jëlu la déedéet dangaa war a am ngànt nangu ngànt te jëmale ngànt li ci téléphone bi waaw su ma soxna njinde mu sone ba coupé ma waat ko mu sone ba coupé léegi ma ne ko lu tax ma lay woo jëloo ma déedéet lu ma wax loolu waaw dama naan ko rek woo naa la sànq ñaari yoon jotuma la mu jeex waaye nit ñi duñ def loolu woo naa la jëloo ma lu tax jëloo ma hee bu dee monsieur ma dem nag mun na ko <laughs> ci loo nekkoon loo doon def àdduna tàmbalee tukki nag waaw walla tasal mu'taziran ilayhi woo nga nit ki sone na ba coupé woo nga ko sone na ba coupé waaw boo ko jotee nga ne ko ah, woo naa la sànq jotuma la mu jeex waaye lu tax jëloo ma diw di dama koy woo léegi duma jël <laughs> waaw diw dama koy woo léegi du jël du noonu de dogal ko ngànte rek am na ñooñ léeg-léeg loolu tax ñu ne diw dafa falu changé numéroom waaw diw dafa changé numéroom waaw diw de léegi kenn mënu ko jot fekk na sëriñ bi nee na dogalal ngànt waaw sunu waajur walla ci Louga xaaji Abbas Sall radiyallahu taala anhu nee na téléphone jàngul ziyaara téléphone dafa jàngul teggini ziyaara ñu ne ha mu ne moo tax heure bu ko neexee ne bañaax <laughs> cey waajur radiyallahu taala anhu nee na téléphone daa jàngul aadabu ziyaara moo tax fa innahu yazuru fi kulli waqtin wahin loo mën di nekk téléphone ba naan car du xam yow ci loo nekk waaye ka yor téléphone bay woote moo waral moom tam su wootee benn yoon fi nekk nii ci dëkk bii ci Dakar Dakar deux heures et ba deux heures et demi kenn wërtoon a woo téléphone kenn lu tax sa xel war naa nekk ñu ne ko dem kii maa nga ca jàkka ja wala ko dem ma ngay jàpp wala ko dem nangam waaye dañu ne ci biir jàkk yi deux heures et ñu bari ci Dakar xam nañ ne deux heures et am na ñu nekk ci julli quoi ngay woote ci heure boobu deux heures et demi julli gi jeexagut waaw ñu bari ci dakaar xam nañ ne dix-sept heures dañu julli takkusaan ñu bari pour pourquoi nga bàyyi ba dix-sept ngay woote akaza hakaza hakaza kon mbokk yi sëriñ baa ngi wax fi lu am solo waaw dogal ngant sa dëkkandoo sa mbokk sa àndandoo sa kilifa dogal ko ngant waaw waaye joo naa la jotuma rek nga daal di mer lu tax jëloo ma woo naa la ba sonn jëloo ma déedéet nañ bàyyi terme yooyu di wax woo naa la ba sonn jotuma la am na ko xam ne boo ko waxee tam boo toogee tuuti bu gisee appel bi da lay moo tax sonne juróomi yoon jëru ko sonn ñetti yoon ñi jëru ko téléphone ngóor as ngóor la soo xam ne boo doon jéem a jot kenn waaw Cheikh Ahmad al Badawi yàlla na yokk wér boo ko doon jéem a jot jotoo ko bu ñëwee téléphone bi dana gis ne appel manqué ngi nii waaw appel en absence téléphone nu lay def boo ko fayee boo ko bàyyi noonu yépp saa bu noppee rek dana la nettali li xewoon waaye daal damaa bëgg a wax ni sëriñ bi nee na na nuy dogal ngànt nit ñi hmm? waaw waaw alayhi salaatu wasalaam su masaana tiim aw ñam te néexut <laughs> du wax mukk néexut allahu akbar waaw mag ñi dañ daan wax jaraw lakk waaw du wax mukk neexut xam naa xam naa su su dëkkoon ak nogay yee eh, tit tit waaw bàyyi na togg goro yaay togg waaye <laughs> seet laajal sëñ Mbàkke rek tubaarkàlla sunu man <laughs> noppi sax man waaye yonent bi day dogal ngànt jigéen ñu ko jaraw lakk waaw bu dee mag ñu ne la jaraw lakk ndeysaan ne la neex na bari na waaw am na jàmm ci biir yi waaw ndeysaan nga ne ko ne yàlla na rees ak jàmm jàmm ni ñooy waaye dugal sa loxo dank rek ayya waaw wala buusu ko non waaw wala fël bool ba déedéet yonent bi daana sukk ci ndab ndeysaan di yor loxoom di génn rek ndeysaan di loxoom di génn rek ba nga yëg ne kii li ñuy lekk nii du palaam waaw du palaam waaw ñu doo ko sàkkal pexe ndeysaan mu añ kon na ko dogal ndaw si doon togg far daanu xorom sa ëpp na nañ ko ko nangul kaani ga ëpp na waaw kaani ga cay kaani kaani ga ëpp na nañ ko ko nangul <laughs> waaw yu saf-safal yi xew ci pénc mi nag moom tabarkalla waaw yu saf-safal loolu jar na góor ñëpp dugg ci seen wàññi waaw xool yooyu ba xam ndax jigéen ñi fi ne toll nañ foo xam ne daanaka bàyyi ko moom bàyyi togg leen ko gënal waaw te it euh, Abdoulaye Diouf Sarr xam na ne wér-gu-yaram moom lu ko waa jënd jar na ko te li ëpp ci sunu wér-gu-yaram ci sunu lekk lay jóge ma jël siwaat kon ma ne na ñuy nangul na ñuy dogal ngànt ki jëm ci sewit am benn benn benn benn retard waaw nga nangul ko ngànt la kii la yoreel bor fay jot amul lu mu faye nga nangul ko ngant la waaye bul di mukk sa doom ji nga xam ne moom ngay yar muy futbal bal ba dal ca veer ba nga ñëw ne ko yaa toj veer bi mu ne waaw bu ca teg beneen baat waaw yaa toj bi mu ne waaw yaa kaas bi mu ne waaw bu ca teg beneen baat nangul ko ngànt la loolu ci yar ci éducation la bokk te yar bu baax la waaw nangul ko ngant la waaw wala tuwajjihannahu bi nazari fi kulli waxtin raamiqan bil basari nee na bi ko dogalee ngant bul jàkkaarloog moom di xool bul ko bul ko rog xoolub jéppi waaw bul ko rog mukk xoolub jéppi cëy waaw waaw mu ngoog nee wa imminal min al majlisi xaawalta xiyaam fa xum ala labaqatin waxtal xiyaam soo toogee ci barab ba nga xam ne yaa ngi jóg yaa ngi jóg mu ne booleel sa cër yépp mel ni ku ëmb sa cër yi ne ñokket waaw waaye rikk waaye bul toog ci mbooloo jóg-jógu bërit allahu akbar bul toog bul toog ci mbooloo di jóg ne bërit déedéet da nga da ngay sem da ngay sempeeku <laughs> dangay ngay sempeeku ndànk waaw dangay ngay sempeeku ndànk waaye jëkk-jëkk ne bërit ah nee na loolu day day day tasaare suuf si da ko yëkkati te itam mën ngaa fëndal ña nga xam ne ñoom nga toogaloon waaw kon ñokkatikul nànk rek sempeeku waaw rekk tabarkal la jóg gi noonu lañ ko bëggee hmm? mu ne su fekkee mën ngaa ñàkk nelaw ci biir mbooloo mi nag rikk waay bul bàyyi mbooloo mi toog nga nga tëdd ci biir mbooloo mi di nelaw nee loolu moom bu ko bu ko def bu bu mbooloo mi tëdd ah, bu mbooloo mi toog yow nga tëdd seen biir di nelaw mbokk yi bind bi jeexut bu leen neexee ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bës 2 88 628 98 98 ngeen bës 2 noo ànd suñu jotaay yi nga xam ne day am lundi di am mardi di tàmbali 8 di jeex 10h jërë ngeen jëf ci ànd beeg si Sud FM seen rajo.